développement mënoo ko am te amoo xam-xam kon nag ñu fi ak fu gox bu waaye jóge muy góor muy jigéen maa ngi lay dalal jàmm di lay ñaan booy dellu tam nga dellu si jàmm ah man nag sama wax mënu see bari ndax produit daanaka miinu mukk ah gis naa ci savon liquide boo ko defe naa pour fóot ay west ak yooyu la ah ak raxas kooku baax na ndax xam naa ni euh, ndab moom pour mu set il faut nga def ci saabu te dafa mel na ni am na saabu kooku tam ah jigéen ñi ngeen di ko jëfandikoo ndax set moom munu boo boo setul doo mën a amug wér kon nag luy tax nga set rek war nga ko def même sa yaram sax boo setul wére di ngay def yére yi day xeeñ kon nag set moom baax na mooy tax avancé ci kanam ngeen góor góorlu ci seen formation bi ndax dañ leen di jàngal boo xamee ni boo wéetee te amu leen leneen lu xaw a euh, dàng la ngeen jàngoon ngeen dellu ndax may ma may ma ñu jàngale loo xam ni bu ko defee boo jàqee daw ca daal di mën a am dara kooku avancement la kon nag ngeen góorgóorlu ci formation bi te bu ngeen demee tam ña ngeen bàyyi ca ginnaaw ngeen waxtaan ci ak ñoom monsieur Souleymane Kane dinaa leen ñaan yéen ñépp ngeen tàccaloo bu baax a baax euh, vraiment amuñu euh, fayam am na taxawaay bu mucc ay bu mu def ci lii kon xam na ne yoon wi neexul mais saa yu ko soxlaa rek day dagg yitteem ñëw saa yoo ko woowee téléphone muy ngeen waxtaan aussi loolu nag bu la ko nit defalee dama bari ay occupation loolu doo man lu sant ci mbolo bi nga xam ci mom mo tax mu koy def kon monsieur le directeur merci encore une fois bi ñu jógee ci loolu dina sant madame fay la formatrice madame fay euh, c'est une dame d'affaires c'est une femme très courageuse te euh, fan yi ngeen nekk ak mom jàpp naa ne jàngat ngeen ci mom lu bare bare bare ce qui prouve que ni euh, femmes ont war autonomie Nous devons waruñu euh, reléguer au deuxième plan wala soit ñu considérer comme des femmes au foyer mais nous beaucoup de des femmes intégrantes des femmes qui ont ne si émancipation participer dans la vie sociale de participer aussi dans la vie économique même dans la vie politique bu leen nangu nous ñu yóbbu sax man ginnaaw loolu dinañ leen sant yéen it yéen ñi nga xam ne si yéen leen doon formé parce que ku ci nekk euh, mën naa ne bàyyi sa kër ñii bàyyi na nag njaboot ñii bàyyi fa borom kër ñii bàyyi fa waajur ngeen toog ñetti fan di ko baagante di ñëw te dem leen dikk bi neexul te jamonoy nawet la nekk ñu ngi ci jamonoy eh, watum ñebe beeg ak ya ci aju yépp kon yitte yooyu yëpp gën ko bàyyee ñëw aussi dina leen sant gërëm leen par rapport au courage bi nga xam ne si wane ngeen ko beneen bi collaborateur yi nga xam ne ko àndal muy waa section bi ak euh, waa MOJIP aussi ñoom it ñu def ci mu ci liggéey mucc ayib man naa ne fan yi yendaloon euh, guddi leen fiy nekk bëccëg chaque jour ñoo ngi defar donc ci nekk am na yeneen yitte yoo ndax mais dans le cadre bien ferré ñu wane ci fulaak fayda yu mat sëkk wane ci aussi patriotisme kon ñoom aussi ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm Ali Ndeye Faye ak ñi ko bokkoon liggéey bi ñëpp ñoom Jeefa ak ñi fi newoon ak ñi nga xam ne saa yu soxlaa matériel rek ñu dem seen kër daw yénn yanoo indi ko kon loolu aussi sant nañ leen ci bu baax gërëm leen ci beneen mooy dañuy am mbégte mbégte mu rëy boo xam ne si am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem mbégte bi ci njëkk mooy euh, engagement yoo xam ne dañ koo jëloon fii yàlla suñu borom dimbali nañ ci ba aboutir na aboutir na mooy fii leen waxoon ne kat insha allahu rabbi dinañ leen defal ay formation am na ñu ci doon jiixi jaaxaar am na ñu jàppoon ay nax la waaye jàpp naa ne ku xam idéologie Pastef ak ñi nga xam ne si ñoo fi nekk ay collaborateur am lu wax rek incha allahu rabbi dinañ samanté moom ba am kon bi mo nekkoon premier lot bi ñu mayoon ñu 50 femmes yo xam ne dina wara formé maag euh, gaay ñu ñambaas ci nak directeur ndongol ñoko ak madame fay ba tek ci ñeneen kon nak lolu aussi dina leen ci remercier encore une fois euh contentement bu mag lañ ci am parce que dañ leen di bëgg di gungé ci lu bare bare bare parce que ku ne xam na ne man naa ne euh, kër yi léegi sama kër yi léegi mën naa ne jigéen ñi ñoo ko yor kon nag bu leen tàggatee ci mbir ne leen sa li ma ko waxee woon rek chaque jour di ngeen utiliser madaar di ngeen utiliser eau de javel di ngeen utiliser saabu loolu nag euh, bu dee dem na tey jii xam ne si mën nga koo defaral sa bopp doo doo dem fenn di ko jënd dana la permettre aussi yow mi nga xam ne si yaa ko daan jënd nga koy defaral sa bopp di ko mën am ci rentabilité économique man ci euh, dimbali sa njaboot man ci fay sa say soxla chef de village ne ko mu ñëw kon foofu euh, xol bu set rek lan fi am di leen wax ne insha allahu rabbi lépp loo xam ne am nañ ko ci lu baax wala xam nañ ko ci lu baax dinañ ko fexee euh, séddoo ak yéen olof jaay nag nee di la may jën jàngale luy nappe moo ko gën euh, idéologie bi nga xam si ñun moom la ñuy doxee dañuy def da telle sorte que ni nit ñi maanaam seen autonomie bopp maanaam mën a demal seen bopp parce que nga jël ñaari junni wala ñetti junni wala ñaar téeméer may ko ko euh, mu yóbbu ko ca natub jaalawaale mu jeex benn yoon <laughs> jàpp naa ne euh, nga jàngal ko loo xam ne si mën na ci demal ak boppam boo liggéey dootu soxlaal kenn dara aussi madame Faye xam naa dina ñëw euh, ci exposé bi par rapport ak vente bi euh, lépp loo xam ne si ne produit la euh, yii ginnaaw yàlla suñu borom ci seen loxo la jaar ba yéen a ko defar am na lu ngeen ci yóbbu seen kër démb jàpp jëfandikoo ngeen ko xam ngeen ni mu demee xam ngeen ni mu mel aussi nag vente bi tey dinañ ko def luñ ci fore ci ab xaalis ci seen ci seen biir lay dellusiwaat li ci seen mbébét mooy ñu formaliser leen formaliser leen mooy créer leen benn GIE. GIE boo xam ne si day permettre boo liggéey bu financement état amee parce que yàlla def na ne am na ko euh, link euh, ministre ak DG ak ñeneen ak ñeneen buñ ci mënee génne benn ot état financement ñu mën leen ko indilaat ngeen mën a dem ak seen bopp kon ñi nga xam ne ñoo participé woon ci formation bi GIE bi incha allah ñoom ñépp buñ ko créé ñoom lay lu luñ ci foro ci xaalis rek ci leen ñuy jéem a dox ci document yi ba mën leen a xam ne si day légal ngeen mën a dem seen bopp kon ginnaaw loolu dañuy dalal Baye Omar Seck euh, chef de village am na cekkeen euh, moom da doon ndékki moo ko tax mu naaje tuuti buñ ko dalalee ba pare jox ko kàddu buñ ko dalalee ba pare jox ko kàddu aussi euh, am na fi ay gan yu fi war a ñëw muy responsable de de la femme Mujib manam ki nga xamne au niveau départemental mo jité musib incha allah rabbi déggoo nañ moom ci yoon buy ñëw dañ ko invité won aussi sun gaay yi nga xamne ne si ñoo bokk EPAC en tant que patriote du Kajoor boo xamne ne si Kajoor de profondeur euh, la considéré la euh ñun ñëpp ñuy xatchalo di di dóorandoo bokku luñ bëgg kon Abdourahmane aussi ñu ngi lay présenter euh, l'assistance et les patriotes di la wax dalal ak jàmm aussi GPS euh, et leur coordonnateur est là muy na Gaye moom moo jiite jeune patriote yi aussi di remercier Jaxate euh, ci ànd gi nga ànd ak ñun fan yi yëpp dagg sa yitte ñëw di ñu defal diffusion diffusion médiatique bu am solo yóbbu na vidéo yi fu yóbbu na photo yi fu ne ba ku ci mën cee jot kon ñu ngi leen di bu baax di leen gërëm kàddu yu ubbi la woon rek dal leen jàmm merci jërë ngeen ñëw sant ak ngërëm la ko ci le ministre de formation euh, professionnelle Moustapha Diek Saré nga xamni mo ñu mayon formation yi si ci suñu commune bi jaarale ko ci le directeur du formation professionnelle monsieur Souleymane Kan ñu koy sant diko gërëm ak la formatrice madame Faye nga xamanteni Euh, deux jours yii yëpp macha allah def na fi liggéey bu mucc ayib boo xamante ni yaakaar nañ ni jigéen ñi fi woon ñëpp ci commune bi yaakaar naa dinañ ci jëlee xam-xam boo xamante ni macha allah dinañ mën a continuer di produire euh, ñoo ngi nuyu aussi suñu coordonnateur Mame Adama euh, sant ak gërëm ci moom aussi ci taxawaay bi mu ci def vraiment ak alital ñoo bokkoon équipe bi ak yëpp ñoo ngi ziar ñëpp jigéen ñëpp ñu fi woon ci commune bi aussi ak waa MUJIB mention spéciale à l MUJIB de Pekes euh, ñu ngi leen di wax euh, nuyu suñu chef de village bi monsieur ñu ngi nuyu chef de village di ko dalal moom tamit euh, ñu ngi ñaan aussi jigéen ñi nga xam ne ñoo ngi fi te adhéré guñ ci MUJIB de Pekes ñu ñëw rapproché wu parce que MUJIP pour ñëpp la fi nekkal euh, ñu ñëw euh, adhéré incha allah ñu àndandoo xàccandoo dóorandoo euh, wasalaam taana rajim ñu commencé ci bisimilahi rahmaani rahim àggale ci alhamdulilahi rabil alamin di jiital ci nuyoo bi suñu ministre Moustapha Sare di ci teg suñu directeur bi monsieur Kane bu loolu jàllee ñu teg ci suñu coordinateur bi maam aadama di ci teg tamit la formatrice madame fay moom li may wax rek nee naa dangay boole jàng ak mu lay ambiance li mu lay jàngal maanaam day dugg ci sa xool ndax day kaf ak yow day réew ak yow te loolu day tax nga ñeme ki lay jàngal ndax bu fi nekkoon di leen yemale mën nga gis sa bopp mën na indi leneen mais dafa doon nekk da doon kaf ba yow kaf gi ngay gën a concentré wu sax ci ki lim lay liggéeyal wax dëgg yàlla deux jours mu jàngal la ci moom mu dugg sa bopp comme si mën nga kaa def léegi nii loolu ak sant yàlla la ak baaxam la ñoo ngi lay remercier bu baax a baax kontaan nañ bu loolu jàllee tamit ñoo ngi nuyu Ndeye fay macha allah moom tamit am nañ ci moom yaakaar yàlla na ko yàlla lafal cat yoon bi nga nekk mooy yoon bu baax bi yàlla na la yàlla lafal cat àggale la fi nga bëgg àgg di nuyu waa saal bi yépp góor jigéen mag ndaw bàyyiwuñ kenn ku lim nag doo juum mais danga dul matale te lépp dañ koy tënk rek ndax li ci waxtu wi lañuy ñuy bu loolu jàllee nag di wax ci tuuru jigéen ñëpp ñu doon def formation bi wax dëgg yàlla suñu xol sedd na ndax dañ ne mënoon nañoo ñëw indil ñu ko rek may ñu ko kon suñu xol dina sedd mais nag may la jën wan la ni ñuy nappee moo ko gën lii ma gis nag ci projet jub jubal jubbanti day wane ni ñun xam nañ jigéen ñun ñooy kan suñu gëddaam ndax ñun jigéen ñi dañ daan des ci kër yi rek gere xale yi dem tool loolu kase moo doon suñ métier. léegi tey bu ñëwee ni jigéen kat dafa jot jigéen am xam-xam jigéen mënal boppam jigéen def ay groupement di am seeni cent francs seeni fukki dërëm di boole ñu xam ne mbooloo kat mooy doole kon ñun jigéenu pekkees ak li ko wër yépp dëkk yépp kontaan nañ wax dëgg fa yàlla li may wax nag mooy formation bi buñ ko defee ba pare denc ko loolu amatul benn sens nañ ko jëfandikoo bu ñu demee ñiñ bàyyi ginnaaw nañu leen boole ñun ñëpp ñu toog waxtaan ak ñoom ni leen lii kat lañ fa jële nii lañ koy defee kon nag nañu xool lu ñuy defee suñuy fukki dërëm ak suñuy ñaar dërëm ba mun a matale liggéey bi di wax ne nag ngeen góor góorlu ndax sas nan ñu lu ne la nit mën a def ci nit dindi ko ba mu des xam-xam ndax xam-xam moo doon loo xamante ni si boo xësee ba am xam-xam wala nga am métier bu la neexee tëddal nelaw waxtu wun la yeewee mën ngaa am liggéey waaye nag xel mooy fattu maa ngi nuyu suñu sedd de village ndax moom laa waroon a jiital waaye xel mooy fattu di sant ñëpp di gërëm ñëpp jaxate yow tamit wax dëgg yàlla liggéey bi macha allah mucc na ayib lool. ndax li may wax rek métier journaliste dafa doon loo xamante ni sii dañ koo war a jëmal kanam ndax ñun buñ toogoon fii ba suba di wax du dem fenn mais moom mi moo ko yóbbu ci YouTube bi. moo ko yóbbu ci TikTok bi moo ko yóbbu ci Facebook bi moo koy yóbbu fépp maanaam ñun mooy génn suñu liggéey waaye di sant ñëpp di gërëm ñëpp lu fi manqué nag nañ xam ne mëta di doomu aadama bi la lu fi mat nag nañ xam ne yàlla suñu boroom la maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. Euh, euh, formatrice bi euh, di leen ñaaxaat rek ne suñu engagement xam naa ne di ngeen ko def nag. mooy ngeen wax formatrice bi ne ko incha allah ñi ngi xaar ay foire ba pekkees maanaam standing ñëw wone li nga xam ni mooy li mu mëne man damay wax sax ne du ñu yem foofu du ñu yem foofu heure bu session yi pare ba yeneen formation yi ñëw ba ñu am une diversité monsieur le directeur on promet organiser ici une foire où on invitera tout le Sénégalais tous les Sénégalais def ay exposition won len ni len ñun tamit vraiment ñi ngi ci ndax seeni morom ñoy dem France di exposer ñoy dem Chine ñoy dem États-Unis di exposer ca loolu ñu man man ngeen ko kon ñi ngi ñaan yalla dem ba egg fofu ca ñi ngi wax directeur promettre na neena dinañu accompagner ca dina ko def ndax lim ñu jot wax def nako kon euh, insha allahu rabbi du yam fi lii ce n'est qu'un début c'est juste un commencement kon euh, incha allah dinañu dem ca kanam a kanam a léegi nag dañuy joxaat beneen formé ci ñi ñu doon formé ku ñuy wax xadikan moom it mu wax ci turu ñi ñu doon formé ana xadikan mbokki salaamaaleykum waa saal bi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci tur ak sa sant di leen xamal ne leen ñun dañoo kontaan waa Pekes parce que lii ñu am nii ñun dañ koo mës a am bu ñu waxalee dëgg rek te yàlla tax lii ñu am nii ñaari fan yii mosuñu koo am te lépp lépp ñu ngi siy sant Aada Gueye di si sant ak ñii mu àndal jànguma nag duma wax français bu ndax dama bañ ñu may reetaan mais sama doomu bàyyi ngi fi ñu ngi sant tamit sunu soxna sii ñu doon formé parce que war nañu yar wan nañu ni ñuy nekkee ci sunu kër yi lépp jàngal nañu ko ci formation ñaari fan yi lépp kontaan nañu bu baax di xamal ne ne jigéeni Pekes lii nga xamante ni jàngal nañu ko nañu ko def loo xamante ni dañ ci mën a faj sunuy soxla di ci am sunuy juróomi dërëm di ci am sunuy ñaar dërëm di ci dimbali sunuy njaboot parce que lii ñu ñu jàngal nii yaakaar naa ne bu ñu ci jàppee dinañ am ci lu ñu jëfandikoo kontan nañ nak wax ci mbolo dafa yombul ma ngi leen di jéglu bu baax waaw na ci formation bi waye woné na ndax def na fecc na tuuti kon yaakaar naa ni xadi li nga wax dégg nañ ko am na solo waaye may rappeler rek ne euh, formatrice bi dafa am lu leen umpale mooy yamu rek ci jàngal leen mais dafa jiital benn pédagogie boo xam ni loolu mooy waree fam ndax moom jàngalekat la ndax euh, boy jox nit ki xam-xam do ñew rek jox ko ko sèchement ca woné na ni jangalé kat la kon joxé nako ak euh, la plus belle des manières waxtaane ni ñi kaf ak ñi kon formatrice bi euh, jigéen ñi nenañu contane nañu ci lolu ci approche bi nga indi pour former len kon vraiment ñi ngi lay sante ci lolu di wax rek ni mo ci woté nañu nenañ ñi ngi ci yoon di ñew excès euh, gu ñu xaj na nag yoon wee naqari waaye ñi ngi ñëw kon euh, ñu bàyyi leen xel rek xam ne ñoom vraiment euh, farataal nañu bis bi ñi ngi ñëw du ñu du ñu guddal dañuy jox rek ndax ku ñuy wax Abdourahmane Fall dafa ñëwee ñaari casquette ndax bokk na ci mbootaayu Kayor des profondeurs maanaam ñun waa Kajoor comme ni ko ànd waxee ñun ñëpp dañoo booloo nekk benn bureau boobu moom bokk na ci waaye yamul foofu moom mooy coordonnateur Thilmakha lay Pastef ca Thilmakha parti Pastef moom moo ko jiite mu ñëw teewee ndaje bi euh, won ñu ne ñoo moom ñoo bokk liggéey bi kon du ñu jàll ca jox ñu ko kàddu gi moom it mu am lu ci sànni kon Abdourahmane euh, ndongo def na présentation bi euh, man la Abdourahmane Fall en même temps membre du bureau départemental de Pastef Tivaouane nekk le secretaire général de EPAC nekk le coordonnateur PASTEF euh, section communale de Thilmakha euh, sama tàmbaliment nag damay remercier le président bassiru Diomaye Diakhar fay teg ci son premier ministre euh, teg ci le ministre Moustapha Ndiack Sarré comme ni ngeen ko gisee nag lii yombut a gis yàgg naa am nag mais am na anam yi mu daan demee benn groupe jigéen ñoo ko daan def yemale ko seen biir mais ñun bi ñu ñëwee prôné la rupture bi nga xam ne moom la président doon prôné ñu fekk ci ko ñun dañoo ñëw nii lii buñ koy def nañ ko defee ci anam yi mu gën a leere anam yi mu gën a yaatoo ba ku ne gis ci boppam euh, di leen remercier bu baax yéen jigéen ñi ci surtout yéen ñi nga xam ne yéen lañ formé di leen wax lii defaluñ ko kenn ku dul yéen aussi tamit di leen wax entrepreneuriat bu ñu waxee l'entrepreneuriat rek lii la mais tamit dañoo bëgg li nga xam ne moom mooy la souveraineté souveraineté mooy nit ñun ñuy demal suñu bopp di defaral bopp aussi tamit di consommer li nga xam ni moom mooy local li nga xam ñun ñoo koy defaral suñu bopp sur ce euh, damay ñëwaat si jigéen ñi deel xamal lenn dama bëgg ngeen say nekk benn jàppale la coordonnateur Adama Gueye parce que bu ma waxee loolu que yàlla dogal na ñi ngi ànd di dem di dem si ay euh, ministre di dem si le président même le président la fois passée bi mu ñuy recevoir ñoo àndoon te bi mu demee di fa joxe ay doléance am dégguma ko benn yoon fu mu fa waxee ay doléance bopam manam fuñ koy nominer wala dara mais doléance Pekes la fa doon wax muy lo xamni tay ah ku jara a la ku ku jar a jàppale te day jeune bo xamni tay ah lepp lu mi œuvre ci li muy dox rek mi ngi dox ci yittey Pekes xol nan la Pekes di avancer kon nak ñu ngi leen di ñaax bu baaxa baax ngeel jàppale ko aussi tamit formation bi ñu leen defal tamit na ngeel fexé ba bu mu doon formation bo xamni fi lañ ko defee fi la yam dañoo bëgg ngeel def ci ay résultats dañoo bëgg ngeen def si ay résultat te résultats yooyu si leen leen di xaare te lii ñu leen di defal nii tey jàpp leen ni lii commencement kese la lii tàmbaliment la wala boog lii nuyoo la mais am na yeneen formation ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bëgg nañ mu ñëw fi te incha allahu rabbi leen def la tuubam ñëw fi te aadama boobaa du si des ginnaaw dina def la tuubam ñëw fi comme ni ko ndoo nga waxee joxe na fi benn idée muy idée foire nga foire boobu ñu bari xalaatuñ ko woon te mosu fee am mais loolu innovation lañ ko bëgg a parce que bëgg nañ fi def foire boo xam ne tey day dox ci li nga xam ne li naan intercommunalité intercommunalité bu ñu ko waxee mooy commune Pekes mun na fi organiser foire daal di invité commune Thilmakha yeneen communes yoo xam ne mën nañu jóge ci yeneen département ñu defee ay exposition pourquoi pas ñu génn réew mi invité fi waa Mali waa Mauritanie ñooñu comme ni ñu koy defee ci foire yi nga xam ne mooy am ci yeneen lu mën a nekk la te loolu tamit dañ koo war a xalaat daal ci euh, bàyyi xel bu baax a baax loolu lépp ci cadre développement la ci cadre tamit le projet Euh, di la jégalu bu baax a baax di gàttal foofu mais balaa may jeexal euh, damay adressé benn monsieur Kane euh, d'accord maa ngi lay félicité aussi tamit di la invité di la invité bu baax a baax si à une collaboration à la manière dont nous pouvons collaborer pour étendre ces bienfaits dans zone quand je dis cette zone je dis le Cayor des profondeurs le Cayor des profondeurs c'est Thilmakha Niakhène Mbayène Ngandiouf Koul Mérina Dakhar Toutes ces communes-là font partie du cadre des profondeurs. Et nous voulons cette formation, euh, un élargissement de cette formation dans toute la zone pour que les femmes et les jeunes puissent y bénéficier euh, de cette formation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Euh, balaa ñu ci jall yaakaar naa ne xaal saal bi dafa war a xumb ndax eh, formatrice la ñuy jox kàddu gi mais dañ koy interpeller ay yoon dañuy ñaan ngi nuyu ñëpp di jël nuyo bi di ko teg ci loxo chef de village eh, ndax moom mooy borom dëkk bi eh, ginnaaw chef de village nag damay wax directeur formation bi bu neexee nga na ci jàpp tàccu leen waa Ngéyeen Adama nag dëgg la euh, moom mooy maanaam daal ay soxnaa ma fa nekk mais wax dëgg yàlla kër moom jigéen a ko yor waaw kër bu dépense bu dépense doyee ca jigéen ji koy togg yaatuwul kër dina xat mais macha allah am na ku ma doon woo démb ci guddi mu ne ma ah, yow madame Faye sabaat bi daa leer de yow de xanaa fi nga nekk yaa ngi noos ma nekk maa ngi noos kon ñu ngi sant vraiment Adama à travers Adama ses frères ni soxna vraiment euh, man nak li nga xamné ne euh, ñi doon formé wu wax nañ ko doyna seuk xam nga luma ma rek ñom ñu xam ko moy yaakaar ni demb ak barki demb sa bu ñu fi gis ni bu ñu leen ni leen man ngeen koy defar man ngeen ko defar dañ koy weddi deug la walu du deug bu ñu waxon ni sa bu yi man ngeen ko defar da koy weddi ca tay gis ngeen ne yeen yéen ko mënal seen bop ca lolu lu am solo la bi ci gën a intéressant nag mooy saabu ordinaire bi saabu ordinaire bi saabu ordinaire bi bi may ñëw dama ne aadama jëndal ma diw ga ca dëkk ba Adama moo jënd diw gi fii lañ ko dajjee maanaam li ñu defaree saabu ordinaire bi diw gi ñuy jaay ci boutique bi la ak xeme bi ak ndox mi te yéen yéen a ko defar ginnaaw loolu ma yër fii ci ginnaaw fi ñu doon defaree seen fi mbante ci nit ñi feebaru bulat bu la solelee ak grippe mbante lañuy baxal sangee lako dalé ci la xelil nga nan saabu yi ni saabu bi mbante la mbante mbante bi xolal adama dama lay ki ana sama orné ba nim ni mami defar nañ ci saabu saabu baangi ni xam nga légui nak ñu yok ci yenen saabu yo xamné ne si xay la saabu xay saabu boof xam nga saabu curcuma ak tire mu nekk loo xam ne si tey jii nii nit ñi ñi ciy waajal gàmm moom mën nañoo commencé sëlmu waaw waajal gàmm gi waajal ga waa mais euh, fekk nañ fi nag vraiment ay euh, ñu bëgg ñu am volonté daal ñu am volonté ñu bëgg te am nañu yaakaar ne bu ñu jógee ci formation bi ñoom dinañ continuer di ko dina ko di ko doxal parce que yaakaaruma ne nit dina gis loo xam ne si moo ko defal boppam man cee sécuriser boppam muy dem di jënd ji loo xam ne si kumpa la ci moom kon yaakaar naa ni euh, ñun suñu wax du ci bëri man agent du ministère de la formation professionnelle la agent du ministère directeur mi euh, directeur direction de l' apprentissage man ma nekk ci centre formation en entrepreneuriat jóge see lycée Seydina Limamou Laye kon ñun nekkuñu lu dul di doxal li nga xam ne moo tax ñu ñuy fay waaye lenn loo gis

am naa yaakaar ne nag alxames bii di ñëw di ngeen defar seeni saabu toog ci luuma bi ca bu boobaa appel vidéo laa leen di def ndax damaa bëgg preuve donc vraiment kontaan nañ ci bu baax a baax comme ni ko kii euh, euh, euh, Adama waxee ci biir formation bi directeur defaa leen nañu un accom kii tuuti ci entrepreneuriat ndax def nañ calcul des ba ñoom tey jii nii xam nañu litre eau de javel bi ñaata la leen dikke ak ñaata lañ ko war a jaayee su fekkente ne xott bi dañ ko dañ koo jëndee fukki dërëm xam nañu butéel bii ñaata la leen dikkee xam nañ saabu bi ñaata la leen dikkee ba tey jii nii def nañ benn budget prévisionnel pour engroupement bu bëggoon a def cent litre détergent la nag lañ lay jënd euh, li leen koy gën a yombal nag tey mooy tey jii nii yéen dafa mel ne produit yi fañ koy jaayee mi ngi fii biir Pekes ndax yàllaa ngi dogal horaire u Ibra Mbaay bi fa muy gaare ci jàkkay murit fa laa dëkk ca soliwul marché Caaroy donc produit yu ci bëree bëree bëri yéen su ngeen ko amulee rek ci yéen la man fu gën a sori fii dama fay envoyé ay produits muy dem parce que bëgguma nit ñi toog ca liggéeyu ñu mais am na ci loo xam ne si moom am na ci seen marché bi mooy tiir am na fi karité am na fi xeme am na fi kon su ngeen def diwlin am na fi donc yaakaar naa ne daal vraiment euh, di santaat bu baax directeur ci confiance bi euh, ndax ñun defuñu lu dul suñu warugar mais toujours bëgg na fu ñu fu ñu dem innové fa ay produits yoo xam ne sii day fekk nit ñoo nit ñi bëgg nañ ko ca rar na waaw parce que soy defar señ fallo dafa waxoon soy jaay da ngay jaay li nit ñi bëgg ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp euh sank nak bi ñuy kiyé dama ni man sama borom kër séeréer la euh man madame fay madame fay la lolo tax ma laal ci mbilim mi tuuti rek waaye euh ayuma daal ayuma ma <laughs> jërë ngeen jëf merci le le cameraman mom depuis le premier jour mi ngi fi tàccu len jaxate ca bu ngeen delloo bu ñu envoyer lien bi cliquer leen fa rek su ngeen bu demee suñ leen ngi cliquer ba dugg ca YouTube ba dem leen ci fa nu roog loxo ba jëm nii ca kaw ngeen daal di fay cliquer daa di koy partage parce que loolu dina am dina am solo man démb li ngeen jot a dugal donc euh, cliquer naa ko daal di adde abonné ci abonné ci page bi. léegi nag lii nii produit yi fi nga xam ne dañ ko fiy jëlee suñu paree dañ koy jaay mu nekk en fonds de roulement waaye dañoo wax femme formalisation. bala ngaa egg ci financement da ngay formaliser wu léegi nag looloo tax bu ñu jógee ci formation bi daneen taxawal benn GIE GIE bi nag nekkul obligation ñépp bokk ci mais ku ci bëgg a bokk mbooloo mi dinañ daje wax ne ku ci bëgg a bokk nangam ngay bokkee ndax xam ngeen ni maas yi ngeen am ci seen dëkk kuy bokk ci maas gi da ngay dugal dara su ko defee li nga xam ne jëlee nañ ko fii mu nekk loo xam ne si dina mën a démarrer waat jënd produit liggéey continuer jaay mu jël ay ressources ci GIE bi jël ay ressources ci ñi nga xam ne ñoo koy kii ci yaakaar naa ni produit yi ñu leen jot ñamal dem bi ngeen demee utiliser ngeen ko neex na neex na neex na ci fóot neex na ci sangu waa kay wasalaam jërë ngeen jëf. bi matale na discours bi matale na euh, rafet na euh, waaye ñu jànge ci rek ñaari mbir ci li mu fi wax ndax wane na ne. intrants yi dem ci la fabrication de ces savons sont de la localité ndox xeme ak euh, niima mbante loolu récupération la sax laay wax daanaka jaru dara euh, léegi dañoo toll ci ère boo xam il faut savoir créer de la valeur ajoutée maanaam doo jël rek ci ni la ko nature bu joxe dem jaaye jiwaat ndax kam koy jaay da koy defar ñëw jaay la ko lu gën a cher kon ñun li ñu am moom ko nga xam ne mën nañ koo am fii ci suñu dëkk moom la ñuy jël transformé ko soog koo mën a jaay kon nee na na jigéen ñëpp farlu ci defarum saabu liquide bi ak saabu en dur bi ak eau de javel ndax li koy defar am na fi li ci dese ku si néew buñ ko soxlaa moom elle est à notre disposition pour mën ñu ko jox. deuxième chose moo waxaat ni dañoo toll ci foo xam ne dañu war a organiser wu. au lieu ñuy def individuellement maanaam kenn ku ne demal boppam ñu organiser wu def ay mbootaay ay GIE ci la gën a rentable ndax lu kenn man ñaara ko ko daax kon mi ngi ñuy xaar ndax nee na sax dina toll koo xam ne bu ñu demee def ay organisation dina def appel vidéo pour xool ñun naka la ñu toogee ak lim ñu jàngal naka la koy jëfandikoo kon euh, madame la formatrice euh, man sax dinaa leen engagé ci nii euh, soyez rassurés inshallah dinañ la won liñu mëne kon euh, rafet na euh, du ñu joxagum nag directeur cadre gi euh amna ñeneen ñu fi nek ño xamne war nañ ci sanni cadre ñu fo ñu jox leen ñu wax aussi sen impression ci jigeen ni waye tamit ci goor ni ndax euh, ak tam jànge fi lo xamantani ëlëk ëllëg dinañ dem ba man cee am njariñ dem ba man ko batalé suñu doom dem ba man ko batale suñu seut ak ñeneen ño xamantani ni mën nañu dem mën nañu dund ba dee ma amana duñu xamanté parce que ñi tok fi ñep buñ dajeenwul marché ta mën nga dajé marché ngir sax yaakamti gi dina tax ba do mëna nuyo ak mom nuyo bu leen di ba do leen xamanté ta tay fi na ni suba ko ci dajé sa morom mun nga dem ba xamanté ak mom ngir dajé gi dajé fi li ci gëna am solo ni tay so indi wul won sabu so fekkon da nga defar sabu yi ba pare nga soo ko indi jal ko nee ni saabu yi laa leen jàngal ñun duñ ko gëm de duñ ko mas a gëm ni lii est-ce ñun mën nañ ko bala ñoo comprendre il faut nga defar ba pare won ñu ñu doog xam yow li la ko fi indi ak li nga ñu ni moom lañ leen di jàngal. baneen bi ñun li ñu foogoon man sama xalaatu bopp ak ku mel ni man defoon na ni soo ñëwee da ngay teg say paan teg sa matériel teg sa yépp di yëngal. yengal yengal yow kese ni ni lañ koy defaree mais kenn ku nga ko concentré wu def ni ni ah kay leen def ni groupe sangam nañ ñew def li groupe sangam nañ ñew def li juroom minute yoy nga tan tan fe juroom benn nit tan fe ñett nit seni suñu bokul morom. tay kenn ku ne man nga jël sa numéro téléphone morom so xamulé nga ni alu di wa nan lañ ko defe nga ni nangam ak nangam ku mel man wax sama xel neexul amna lu ma japp mais amna lu ma jappul mais am na ñu ma dëkkal ñoo xamante ne tey su ma xamul dama ko naan alu diw nga ne maa ma wan diw naa nga nu ñu ko defee woon di nga ma reetaan mais di nga ma di tuub ndax daf maa war na nuyoo ba pare muy toog maa ngi baax a baax nee naa nag asalaamaaleykum de asalaamaaleykum mooy nuyoo dégg nga maa ngi jéggulu bu baax a baax a baax bu loolu pare may sant aada géy mii di ko muy samay njaboot di lobal ay njabooti ñaneen te waxuma ko man daanakaa su ma ñibbee amul sens parce que bu ma nettalee bu neexee ni jaayam am na droit ni ma kana kana wax dama kana ah diw ak diw wax nañ ko wax dëgg yàlla wax bu am sens bu ko neexee dina yow loo wax bu boobaa na man lan laay wax yaayam yi mu bàyyi sa kër ga ñëwuñu buñ ma nee yow loo wax man lan laay wax du ma am lu ma wax. kon seede li ci gën a neex mooy buñ nee nit baax dañ naan ndax mbokk yaa wax man mi nag maa koy dëggal wasalaam di ko ñaanal yàlla lépp lu mu mébét yal na egg la dañ ñu daan wax ah dina indi nangam ñu ne ay yow nii diw ne dina indi nangam ay yow nangam nangam weer boobu jàll ñu nattiwaat beneen weer. lii yëpp ñu ko xoolee bu matee deux mois ca la yam yéen ñu toog aada xam na si dara kon su loolu amee lii am ñun dañ léegi félicité di ci am contentement bu baax a baax wax nag yombul maa ngi jéglu bu baax a baax a baax merci beaucoup. saabu miima la ko defaree bii miima lañu boole ak euh, diwlin ak euh, nu ndox ak euh, lii ñuy déedéet xeme moom lañu ko boolee moo nekk nii. bii bi saabu déedéet du miima bi saabu mbantamaare moom lañ ko defaree mbantamaare lañ mélange moom lañ def ci mélange bi boole ko pour expliquer mélange bi mën naa ko mais day jël temps waaw waaw ah, ma def ko ah kon baax na bii bii saabu nen nab lañ ko defaree bii nag produit bi biñ koy defar ñi doon defar ci ngoon gi ñoo ko defar mais ñun am na bu ñu defar mën naa leen a wax mélange bi niñ ko defaree bii bii saabu xay la xay bi dañ koo mélange mu defar mu ne nañu def ñetti pot ci diwlin bi nañu def pot bu ñu natt ci xeme bi rek comme ça quantité boobu moom lañu natt pour def ko ci diwlin bi quantité yi ñoo doon tolloo léegi après ñu def xeme mélange ko moom lañ ko monté d'accord moom lañu defaree mbërbeef bii mbër lañ ko defaree mbër bi dañ koo defar saabu daal di koy mélanger moo doon saabu mbër bi moo nekk nii waaw bii saabu bii la defaree turkiment bii turkiment la ko defaree d'accord bii saabu bii saabu ordinaire la bii moom moo gën a yomb bii moom dawlin kese la ak xeme ak ndox bii moom mélange bi moom jafewul wax fa dëgg yàlla waaw yii yëpp ay saabu la yoo xamante ni ñoo ko doon defar démb si ñaari fan yi saabu yi benn bu si nekk rek ma xam naa expliqué bi mën naa bañ a lii nii mais buñ ma tegaloon savon yi li may defar léegi nii mën naa defar saabu def ko léegi teg ko macha allah wax fa dëgg yàlla moom jàng bi mokk na torop ñun kontaan nañ ñëpp gis nañ ci seen bopp boo koy defar dangay am pâte à savon bu fekkee benn paan nga bëgg a defar ma jaar bi rek bu fekkee benn paan nga bëgg a defar da ngay am euh, savon da dangay am pâte à savon boo amee pâte à savon après dangay am foofu benn pot ngay jël da am benn gën waa xorom bi moom nga koy mélanger day am grain de riz biir day am gonflant day am euh, acide chiffonique day am tamit mouchant pot pot kii liquide mouchant mouchant loolu mu ak moom lañ kii wee kii bi fekkee benn pan bi la soo defee benn pot bi da nga koy mélanger ak seize seize kii ndox pot yi pot pot bi kii bi litre bi rek seize moom nga koy mélanger pour nga am sa madaar day am xeme tamit si biir booy def kii da nga def benn kuddu benn kii ñaari kuddu ñaari lii deux cuillères à soupe noonu la moom ngay am foofu pour nga am <laughs> si kii bi ci madaal bi bi kem kii ni mu ko waxee tamit noonu la dañoo am euh, genn waa libaru eau de javel am genn waa libaru xeme euh, nga ah, day am tamit carbonate eau de bi day amaale carbonate moom ngeen fàtte woon day am benn paquet de carbonate da ngay def 22 litre si genn waa libar bi pour que nga am benn paan eau après ñu xeent ko yaakaar ñun ñepp ñoo fi nekkandoo won affaire yi ñu noonu lañ waxee woon kër mënu matale nag bu ma tamit ngeen xam ni noonu la demee. jàmbaar lañu waaye xam nga Sénégal yàgg nañoo di def ay formation mais dafa am solo formation bi ci boppam nga di ko jëfee man damay ñaan xam nga defe naa ne directeur apprentissage du ma moo am ay maître ay maître maître Euh, corporation bu nekk dafa am dafa am maître menuiserie euh, voilà loolu dafay jaaru tey jii nii xam naa ne yéen waa Kilmaxa soo moytuwul moom moo leen di ñëw formation li ci dama ko def en ligne mais ku jar a encouragé ak ñi mu ñi mu àndaloon la te ndax loolu lu am am solo la parce que tey jii benn nit mënul matale ñëpp mais vraiment li mu fi wax yëpp maa ngi woon fële ci ginnaaw mais noonu la. ñii nag dañuy doog a commencé waaye am nañu volonté waaye wax na dëgg su fa jógee day day defar mais daal vraiment ñu tàcc waa Jarga Ami Ndiaye <laughs> waaw vraiment vraiment ca aussi lii dina dina ñuy dëmbali parce que ñun li ñu bëgg mooy approche faire faire sànq am na ku ko wax euh, dafa am benn méthodologie boo xam ne si euh, booy jàngale noonu nga war a def mooy j'explique je fais nous faisons et vous faites vous avez dit, je vous ngay vous dama koy nga ko ya ko ma def ko nga gis ñu def société so si si vidéo yi dama leen wax kenn ku nek def parce que so défé ci ngay vous gaaw man xam nga waaye ñu bëri jàpp nañ ko ba suñu demee ñu war koo mën a doxalaat léegi kay li am solo ba am solo mooy yaakaar naan daal lii kenn ku nekk su ngeen fi jógee dina dina jur jeexital kon ñu tàccu ñëpp mais ñëpp am volonté aussi bien waa Pekes que village yi wax dëgg yàlla di remercier au passage damaa wax ni kii mën naa wax ñu ne ma ab jàngalekat la <laughs> vraiment euh, monsieur nu mu tudd Diouf ah Diouf Diouf sama goro vraiment kontaan nañ bu baax a baax directeur xamna ni le champ élage mais xamna ni suma amé ay relais rek li ci dess dama koy def en ligne quoi ay relais inshallah allah jërëjëf. de la formation monsieur Souley di nuyu le coordonnateur de la commune de Pekes monsieur Adama gay di nuyu le coordonnateur de la commune de Thilmakha monsieur Abdourahmane Fall di nuyu le coordonnateur de la commune de Niakhène monsieur Pape Biram Gaye di nuyu délégation bima andal àndal yépp di nuyu monsieur le maire ñom euh, goor ak ñépp ñu ngi leen di nuyu di nuyu soxna yu tedd yi ñu fi fekk damay tambali rek par euh, féliciter Adama yeen wa Pekes li leen Adama defal ñun ñi ñépp bëgg nañ ko Sénégal yépp bëgg nañ ko yaakaar naa nag bu da cee xar tànk tuubayam pour ngeen mën ci jot dama deg demb soxna ra wax ra njaay ki ñi wax ra njaay wax lu am solo mën nit lum la xess ba jangal moom mënatu ko nangu té dañ yàgg wax ni nit bu ko jangal bu ko may jën jangal ko ni ñuy nappé dañ leen a jàngal ni ñuy nappé donc monsieur le directeur vraiment li ñi ngi lay ñaanal nga yaatal ko ci gox bi ak ci Sénégal parce que soxna yi ño nek ci kër yi ño téé kër yi buñu amé dara duñ ko yobbu fenn xam nga sama zar gi des nga am dara man nga jadd mais soxna yi luñu am ci kër gi la jëm si donc nak ñu éviter li fi daan am formé nañ leen jox nañ leen way fexé leen tout pour jëfé ko métier la li métier la métier boko amé dang koy pratiquer te yakarna c'est pas évident li bu ngeen ko xayma ci xaalis bu baree baree bari bari la donc bu ñu ñëwee defar la ko gratuitement c'est pas parce que c'est gratuit que da nga ko war a soofantal déedéet parce que xaalisu askan wi la directeur génne def ko ci donc danañ ko war a téye ak seen fukki loxo je pense que xam ngeen porte bi je pense que dina leen jariñ je pense que dina changer seen euh, nekkin parce que loolu mooy cëslaay bi monsieur le directeur ñu ngi lay féliciter à chaque fois ñu lay suivre yaa ngi sillonner le Sénégal pour que jigen ñi euh, def euh, un pas en avant lool nak moy ce métier yaa ngi koy def ci jigen ñi yaa ngi koy def ci jeunes yi yaa koy def ci mag ñi yaakaar na ni monsieur le président Ousmane Sonko juumul ci tan la parce que boko ci directeur yi nga xamni ni dañuy tok sen bureau rek di joxe ay directives da ngay wacc ci terrain bi bokk liguey bi ak nit ñi té loolu c'est très important. en tout cas ñu euh, au nom de l'entente des patriotes du Kayor parce que boo ko defalee pekes rek mel na ni defal nga ñu ko ñun ñëpp au nom de l'entente ñu ngi lay sant di la gërëm di la wax nag boo ñu ko mënee yaatalal ci entente bi ñu jël Adama félicitation félicitation félicitation jërë ngeen jëf amaana waroon ngeen ma fi mën a gis avant lii mais ay xat-xat saa yu xëyee ñu ngi bay sunu bopp jëm fenn ndax buñ sañoon képp ku ñu woo ci département bi dina la wuyu ndax bi ni monté mojib bi fii maa war a ñëw par la suite laa am contretemps yónnee Fatou Niang ngaay moo mujj ñëw représenté ma fi ma gis vidéo yi mu neex torop taaru torop macha allah tey jii nag ñu ñëwaat fii fekke si seen liggéey bu rafet bi nga xam moom la ñuy xaar ci mojib yi nekk ci commune yépp lii lu am solo la lii mooy ñun dañuy liggéey avant nguur gi donc nguur gi su ñëwee yéen jàppale leen du jafe parce que fekk na leen ngeen di formé def seen ay formation bopp ba pare di liggéey lépp nag ngeen jiital ci seen coordonnatrice bi macha ñu koy rafetlu torop ah. di leen encourager rek di ñaan yàlla àggaleen lii nii buñ fii dee suwaat mu doon beneen exposition boo xamante ni si daanaka dina ne département bi 18 commune yépp dinañ fi teew man en même temps coordonnatrice zone au niveau national Thiès ba maatam man mii maa ko diriger maa leen di coordonné di ñaan yàlla tamit fépp fun war a teg suñ tànk fii ci senegal di liggéey ñu àndandoo ko liggéey projet yi yàlla dimbali ñu madame la ministre maa ngi koy nuyu de passage sunu mamaan national boobu muy madame Maïmouna Dièye kooku mënuñu taxaw fent tudduñu ko parce que bu nee lingeer yi moom moo tax suñu amee doole moom moo tax suñ amee fit moom moo tax kon boog jaaraama ñu ngi koy sargal bu baax di am nag yaakaar ci avancement bi mu nekk ci projet yi ak formation yi léegi am nañ ci yaakaar léegi ñu jot ci ndax daanaka mën na ni commencé na te bu boobaakat mën naa ne lu metti woon dina yomb ndax ñun soxlawul leen waxuma laa jigéeni Kajoor dañoo am jom dañoo am fulla nangoo daan seen doole soxlawul dara kenn di jàppale nag seen boroom kër yi liggéey rek leen gëm kon ñooñu soo leen jàppalee ci liggéey dañuy dem yal na yàgga yàlla àggale yéene yi te projet bii nag ñu jàpp ci bu baax projet bi sunu président Diomaye fay dirigé muy président de la république ak premier ministre gor sosu muy président Ousmane Sonko ñu jara jappalé la ndax ku xool réew mi ak situation bi fi mu toll nga xamni ni nii réew mi kep ku bëgg jup ku bëgg jubal ku bëgg lu baax di nga gëna japp gëna téy gëna tax gumbalu ndax nag ci yoon lañ ñu jëmee te saa yu ñu xëyee ñu ngi koy won ma leen di soññ bu baax gën a sensibiliser nag gën a sensibiliser seen moroom yi nekk ci kër yi ak ñu comprendre gul te am nan yaakaar ni majeure partie bi yépp comprendre nan lan mooy projet bi projet bi mooy liggéey projet bi mooy defaraat Sénégal projet bi mooy fexe ba li ñépp bokk ñépp jot ci senegal fu waay nekk xam ni yow mii sénégalais nga yaa ñépp a fi yem te kat ñu jox na jigéen cër jox jigéen cër lool bu njëkk waxuma la yéen waxuma la man tàccu rek lan baaxoo woon ak dugg ci ay kaar ñu ñuy fay waaye tey ñun ñooy cotisé di dajale suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm di ko campagne di ko dajale ñun jigéen ñi def suñuy GIE di def formation ba tey yàlla indil ñu nguur gi xanaa loolu mooy jug leen ngeen liggéey bi loolu weesoo dañ fu jigéen toog fu góor toog jigéen dafay toog ba delloo ñu njëkkal njukkal ci nag jël ministre de la femme ministre de la famille et de la solidarité muy sunu présidente Maimouna Dièye teg ko foofa loolu mooy ñun njukkal ñu nga xam ni ñun lépp luñ war a jot dinañ ci jot ndax moom moo ñu jiite te moo fa nekk ngeen gën a am yaakaar gën a takku gën a liggéey maa ngi leen di jaajëfal bu baax di kontaan naaj na naaj na torop di jéggalu ci retard bi ñëpp xam na ni yoon bi neexul moom laay wax aadama léegi mën ko yoon bi fi mu ne yaa ci war a taxaw de nee naa ko du kenn yow la te dina ci taxaw incha allah yal na nu yàlla jàppale kontaan naa vraiment je vous bu vous tous merci.